sonn. Mm-hmm. waaye politique daa bokk ci ñun nag de. dama ne lu mu bokk bokk bokk ci ñun du mm-hmm. métier. Mm-hmm. nit ki dangay ngay uti métier bu lay dundal politique warul dundal nit. yow mii politique yaa war a dundal politique. mais waroo ko dundee. d' accord euh, ñu fësal euh, mbirum pointage fa administration. ak fonction publique non pointage moom. pointage. mi ngi tàmbalee ci président de la république. Macky Sall waaw ko moom heureusement du def populisme. voilà fasalu ko. heureusement. Mhm. moom du def populisme. Mhm. waaye xamal askan wi tamit ñu xam. ñu comprendre si la bokk pourtant nag xam nañ ko. mais citoyen pourtant nag xam nañ ko. man man non non xam na xam nga man fi may liggéey. non déglu déglu xam nga man fi may liggéey. Eh, citoyen lambda bi toog si këram. <laughs> citoyen lambda bi di togg di bale di foppeere xamul luy pointage xam nga loolu xam nga xam nga citoyen lambda bi bu ko xëyul gontul sa yoon nekkul ci pointage. ah bien sûr xam nga tax ma ne la sa yoon newu ci. déglu da ko war a xam parce que ëllëg a tax soxna si. ëllëg a tax si sénégalais la bokk. soo demee di liggéey nga am xëy. Mm. soo ñëwee. Mm-hmm. ñu recruter la. Mm-hmm. dañ lay foto defaral la carte professionnelle. Mm. loolu pour pointage la. dëgg soo demee ba commencé liggéey. Mm. tu na pas besoin yow xëyoo gontoo mais ñi nga xam ne dañoo nekk ci administration bi di liggéey. Mm-hmm. xam nañ ni chaque ministère agent ya fa ne am nañ seen carte professionnel avec leur photo en main. ba ñuy def audit fonction publique bi waaw wala déet. bañ koy def ci lañ doon photo nit ñi fonctionnaires yi enseignants yi defal nañ def nañ def nañ ko nee ñoom ñëpp envoyé seen photo ngeen defal seen carte professionnelle mm-hmm. les enseignants détiennent leur carte professionnelle en tant qu'enseignant mm-hmm. noonu la def ba xam mm-hmm. la nombre de fonctionnaires qui travaillent au niveau de la ba dindi nañ ci personnes ñoo xamante ni c'était des c'était des c'était yoo xamante liggéeyatuñu ci lañ leen dindi carte professionnelle bobu mom ngay utiliser soy xey pour ñooñu pointer. so démé dans les agences pareil mm-hmm. so démé dans les directions générales pareil non dama né déedéet jarul fësal. mais amna ño xam ne daan ko respecter respecté. ñay xey ci bureau ba. machine yi da daan fay. déedéet ñay xey ci bureau ba. wa ñay xey ci bureau ba xam nañ. ben ngi mm-hmm. li sama carte. li sama carte professionnelle mom mm-hmm. lay pointer damay ñew pàcce tey sumay wacc damay ñew pàcce te c'est le directeur général Biram Fay moko def ASP wa wala déet moko fa def parce que gars yi kaye lañ doon binde cahier registre nga doon ñëw ASP registre nga doon ñëw bind bind heure bi parce que les gens par sont payés par heure de travail effectivement sénégalais yi xamuñu ni amna amna agent yu bari dañ leen di dagg ay heure de travail mhm. salaire bi ñu négocier diko fayé ko mhm. du salaire bobu lañuy fayé ko su bi dee parce que dañ leen koy dag né sa bo defee heure supplémentaire aussi nañ la ko fay. malheureusement. c'est ça le problème. malheureusement. le sénégalais mom xam nga man wax na la wàññi heure. ñu né la sa yi gaaw nañ ci non dama né malheureusement malheureusement mais la defaral heure supplémentaire de lu ma lax de. les fonctionnaires sont tous égaux. Mhm. les agents administratifs de l'administration sont tous égaux. Mhm. lolou la constitution bi wax. voilà. Mhm. mais so demee impôt domaine am nañ ay fonds communs. xanaa ñom ñom ñoom dañ leen ci wax nak ah mais fonk moom boobu sax nag. sa nouveau parce ah, que xam moo tax. nee nañu euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Amadou Ba fonk moom moo tax mu am li mu am. waaw ah. te ñoom jàpp nañ ne. fonk moom ñooñu ay fonctionnaire ñooñu lañ kay. ministère de la justice dañoo am fonk ma. ay les agents du ministère de l' éducation nationale amuñu fonk ma. ay fonctionnaire lañ comme ñoom. les enseignants qui se tuent à l'intérieur du Sénégal les fonctionnaires sont comme avons amuñu fonds commun. te ñoom fait def Nous ñu fait ñu mel. def lu ñu taw. inégalité bi ci administration bi bari nak puisque fait pour joyanti nañu Nous ba joyanti ah ils dañ noire dañ. dañ. kon yi caisse noire. Ah. Ah, caisse noire ah question noire mon. xam nga kay que wax la lu Ousmane Sonko hérité je vais te dire je vais te dire. <laughs> Sénégal neex je vais te dire ce qu'il a hérité. Ah. je vais te dire tout de suite combien il a hérité té man yakoronal c'est des fonds spéciaux hein. le premier ministre Ousmane Sonko bénéficie de ces fonds logés dans deux rubriques fonds de sécurité 250 millions fonds d'aide avec une allocation 400 millions. Mhm. fi Lolo ne nii ci gafa Ousmane Sonko en tant que premier ministre des fonds 250 mhm. millions. 400 millions ça fait xam nga 650 mm-hmm. millions. Moi, fonds spéciaux yooyu xam nga loolu la ñuy fonds noir. Mm-hmm. caisse noire fonds spéciaux yooyu le Ousmane Sonko premier ministre détenir. Mm-hmm. voilà dañ ne woon dañ koy dindi. jàpp ma ko de. dañ koy pas peut-être mais dindi moom jàpp ma ko. yàlla baax parce que nag un Premier ministre doit détenir des fonds pour accompagner les populations sénégalaises qui sont dans des situations de détresse mhm. Premier ministre mën na faj ku febar te xamuko. Premier ministre mën na dimbali ben sénégalais mhm. bu ñak te xamuko. Mhm. fan la koy jëlee du ko jëlee ci salaire am feebar yooyu sax ñom nenañ nañ urgence ku fa dé waro waro fay da nga wara dem dugg ñu faj la état mo la wara a état mo la Wara a nañ ci ag. parce que urgence lañ wax kon ñu nekk si diggante dund ak dañ ko sauver dama ne. suñu hôpitaux yi moom boo amul. dama ne dama ne so démé urgence. Mhm. dañ lay faj ba pare. Mhm. Donc laa topp. Mhm. lolou moy urgence. parce que loulou éthique la ak déontologie médicale. malade warul accès hôpital. ñu ne duñ ko laal parce que fayul. mais na am fi. Wa do dama ne dama ne lolou du yoon. suñ ko am apporter les corrections nécessaires. j'applaudis. parce que nak dina ci bénéficier wu ah du deug suñu joyenté dans les pratiques moy jubanti bi moy mm-hmm. jikko yi sénégalais yi amone ñu soppi ko du état dé jikko yi sénégalais yi amone ci bir accueil ba ci hôpital ak nangam sangam ñu soppi ko man duma tàccu ah waaw parce que man ci sénégalais yi laa damay dem di dund lu metti mm-hmm. damay dem di faji sama dom mm-hmm. di dund lu metti wala ah, su nekké jubbanti nañ ko nak fexé nañ ba sénégalais bi nga xamni mo nek ci situation yoy su malade bi ñëwee ñu mën ko jël en charge bala muy dem mais damay tàccu ah. damay tàccu de. Mhm. mais nag faju seer na Sénégal. torop nañ ko wàññi. Mm. parce que nag puisque ñoom ñoo fi ne tey dinañ leen wax li ñu war a wàññi faju seer na Sénégal nañ ko wàññi. Mhm. faju seer na Sénégal nañ ko wàññi dund seer na Sénégal nañ ko wàññi. Mhm. li ñu war a wàññi bari na. ñaanalu ma leen heureusement def na ñu ngi def conseil ministériel sur sur les inondations malgré le président a fait beaucoup de choses par rapport à l'assainissement. ñaanu ma mbë fekk leen fii. ñaanuma mbënd dal leen. Mhm. parce que kuy doog a falu da koy ñaanal yàlla mu mu doxal. d'accord donc foofu la affaire bi toll parce que le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mhm. des dama koy ñimantal xamu tax. Mhm. xale la il ne s'est pas préparé. Ah, Mais malheureusement. Il s'est préparé en tant que Premier ministre. Malheureusement, malheureusement son président de la République, son Premier ministre, il me donne Donc ce duo, est-ce que vous voulez ay comme ni mu koy waxee ñu yàlla mu nekk duel. kenn bëgg ko mais ci duel lay mujjee. Mhm. parce que réalité la aussi li ñuy gis la. li ñuy dund la mais c' est à dire c' est à dire les prérogatives du président de la république. Mhm. soo énormes mhm. nee na dañuy préparer loi ci li ñu bëgg parce que génnagul. jox jël ay pouvoir jox ko premier ministre. jarul loi. décret article cinquante bu constitution bu Sénégal moo ne décret ngay jël rek. jël ci say pouvoir jox ko xam nga tax décret bi baax parce que nos textes sont bons nos textes sont très bons amul dara luñ ci yok xam nga tax décret bi pour waji su naree def naka su lu noonu nga jël pouvoir yi ñu koy jël té parce que nit su amé pouvoir su amuloon pouvoir nga jox ko pouvoir mu tok sa diggu bop effectivement té Sénégal ben